04 45 bu dee code marchand bi 41 35 45 web 77 Corporation be together and work together. سأمشي لطه خير فر ومالك الله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله إلا إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله

min qabliha tibta fi dilali wa fi mustawdain xaysu yuxsafu lwaraqu suma habata albilada la basharun anta wala mudgatun wala alaqu mutaharan tarkabu safina waqad aljamma nasran wa ahlahu algaraqu waradta naala alxalili muktataman tajulu fiha walasta taxtariqu tunqalu min salibin ila rahimin ida mada alamun bada tabaqu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 ذي مال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ بالهلاك من آل هاشم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 إلا ما كن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سواه تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي تهنئة ربيعي لمنحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أبلي بها محمد يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربه العلي تنحة ربيعي بمدحتي سفيعي بالمنطق لا بديعي أبلي بها محمد أهلا بشار المولد شر العلا والسدد شر النبي أحمد شر ربيع الأول هنيئة ربيع بمدحة سبيع بالمنطق لا بديع أروي بها محمد قد قص بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والأرض شفيعي بكل خاطف معضل تهنئة ربيعي بلغتي صفيعي بالمنطق لا بديعي أبي بها محمد أهلا بشار فرحي شر الذهاب الترحي وفخرنا والمرح شر النبي الأفضل تهنئة ربيعي بمدحتي شر به سادة وشر من شهور متوج مكللين للحق الشار الامري بالعرف الشار الظاهري بكل وصف نكملي يعني اتوى ربيعي بمدحته السبيعي الأمثلين تهنئة ربيعي بمدحب سبيعي بالمنطق لا بديعي أبي بها مؤملي أهلا بشار سيدي لأحمر وأسودي من حاز سبط سؤددي يوم اعتذار رسلي تهنئة ربيعي بمدحتي سبيعي بقوله أنا لها عند اشتداد الوجل تهنئة ربيعي بمدحة سبيعي بالمنطق لا بديع أبغي بها مؤملي يا لها من خطة جوابه في الحطة من ربه سل تعطى واشفع لدينا تقبلي تهنئة ربيعي بمدحة سبيعي بالمنطق لا بأبيها محمد أهلا بشار المصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل تهنئة ربيعي بمدحة صفيعي بالمنطق لا بديعي أبي بها محمد وشر خير الخلق شر جميل الخلق شير عظيم الخلق في المحكم المنزل هنيئة ربيعي بمدحتي سبيعي بمنطق الابدي هيئة محمد شر الذي اثره اله واختاره من حبه خيره عند انقضاء الاجل ومن له الحسن فقط عليه جبريل هبط بكل نور معتلي مئة ربيع بمدحتي سريع بالمنطق لا بديع أبي بها محمدي أهلا بالليل اثني عشر في يومه الأغر وطيب ذلك سحر ونور أفقه الجليل مئة ربيع خارق يعي الفكر فيك رافع البصر إلى مقامه العلي هنيئة ربيعي بمدحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أروي بها مؤملي وما رأت من عجائب عاملة حين النصاب سبابة ثم اقترى بسجدة المبتهل تهنئة ربيعي بمرهتي سفيعي بالمنطق لا بديعي أبلي بها محمدي كما تدل الزور كما ترى القصر فيه وحل الكسر بصنم المجدل تهنئة طفئت من خجلي تهنئة ربيعي بمدحتي صفيعي بالمنطق يا بديعي أرمي بها محمد وجنهم في نكدي لرميها بالرصد وعزلها عن مقعدي من أجل خير الرسل تهنئة ربيعي بمدحتي صفيعي بالمنطق يا شيطاني جر عظيم الشان من أوضح البرهان لعظم ما بيبتلي تسمية ربيعي بمذهبي سبيعي بالمنطق لا بديعي حبيبي مؤملي أتمنى ذو الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل يعني أتوب

للرفق ما أراد إلهه في الأزل يعني أتورني بمدحته السميع بالمنطق لا بديع الربيع محمد أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جدي لينجلي تهنئة وكان ذا يقينا من الكريم المفضل مئة ربيع بمدحته سبيع بالمنطق لا بديع أري بها محمد أهلا بيوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمه المبجل مئة ربيع بمدحته سبيع بالمنطق لا محمد أهلا بشار العجم إبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسلين يعني أتوبي بمنهق سوية بالمنطق لا بديع أبي بها محمد أكرم بيوم صار عشرين واستنارا لمن حوى الفخارا وغفرة من منزله تهجئة ربيعي بمدحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أوي بها محمدي أكرم بيوم صار عشرين واستنار لمن حوى الفخار وغفرة من منزله تهجئة ربيعي بمدحتي بشار ألم بشار النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل تهنئة ربيعي لمن هدي صفيعي بالمنطق لا بديعي أوي بها محمد أتمت الآلي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل تهنئة لمن أتي سبيعي بالمنطق بديعي أبي بها محمد تنعت ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي تنعت ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمد أبغي بها الجنة ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي يعني أتوني بمرأتي سويرا بالمنطق العبدي أبدا مؤملي أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي والختم لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل تهنئة ربيعي لمن أتي سبيعي بالمنطق لا بديعي حبيبي محمدي وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نختشي غويا بجاه عبدك العلي تهنئة صلى وسلم الإله عليه أفضل السلام ما دام كونه الإله من أبد لأزل يعني أتوب بمدحة سبيل لكل آل حبه مع السلام الأكمل جميعك ربيعي بمدحتي سبيعي بالمنطق لا بديعي أبي بها محمد بجاههم يا إلهي اغفر لنظمها واسمع لقارئها وللذي حضر عمهم بخف لطف يكفيمون نوائب الدهر ما أفات الكدر أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصاب الخيار اللهم صل على سيدنا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 ko ko test bi dama ko ñëw ah, waaw jërëjëf mbokk téléspectateur Kossy TV ñu ngi am mbégte bu baax a baax si ànd bu rafet bi ngeen ànd ak ah, programme bu Kossy TV ah, Cheikh Mouhamad Aba ñu ngi koy ñaanal fan bu lool bu ànd ak wér ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfeex defal ko ko jàmm yan ñu ngi am contentement bi ngeen euh, programme Kossy si liggéey bi li nga xamante ne ni tey mu nekk euh, mawlid bi baaba ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfeex dafa ko jàmmoo euh, mbokki internet yi bu leen génn incha allah andi nañ leen lu bees tàq lu am njëriñ loo xamante ne nii kenn ku nekk si ñun mën nañ koo jëriñoo comme liñ leen tàmmee dinañ ko defal mooy andil leen euh, li nga xamante ne moo nekk yóbbalu mawlud ñu koy tuddee yóbbalu gàmmu dëgg-dëgg mu nekk lu neex loo xamante ne nii ñun ak yéen danañ ko partagé incha allah bu baax a baax fi la nga xamante ne nii day moo nekk si jumaa ji Mawlana Cheikhul Islam Hadji Ibrahima Niass yal na yàlla fayal ñu ko bu baax a baax a baax a baax dëgg-dëgg ku gis jumaa ji gis ngeen uh, taalib ak Cheikh Mouhamadul Amin Baba ñii ngi sinap ñii ngi photo ñii ngi def lu ne waaye yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk si internet bi ñu ngi leen di wax ne bu leen bougé mais leen ñu tuuti rek su ko defee ñu ànd ak yéen si yóbbalu gàmmu gi nga xamante ne nii ñu ngi koy ànd ak yéen waxtu wu ne saasu ne di si am mbégte bu baax a baax di leen uh, ñaanal yàlla defal leen uh, tawféex defal leen jàmm bu baax a baax. may leen ma tuuti ba sax Mamadul Amin Baaba na ngeen am si lu bees tàq loo xamante ne mën nañ ko jëriñoo ndaxte andil nañ kilifa gu màgg andil nañ leen kilifa goo xamante ne nii defe naa waxee ñëpp rek da ngeen daal di am mbégte ak contentement ak xam Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Mouhamadul Amin mooy dem noonu xam nga taalibe yi dañ na moon soppe yi dañ na moon am di jàmm yi dañ koo namoon ñëpp dañ na moon kon loolu moo tax eh, kenn ku si nekk di si bëgg a gis sa wàll kon ñu bàyyi leen ak ki nga xamante ne moo nekk suñu yóbbalu mawlud su ko defee ngeen am ay lettre yu ngeen mën a bind si Mawlana Cheikh Ibrahim waaye yéen gëstukat yi ku si nekk na nga fas yéene partagé jeexitalu Mawlud bi tey jii nii ndax ki nga xamante ne tey moom la ñuy andi dëgg-dëgg nekk na spécial si bindi téere waaye nekk na gëstukat boo xamante ne nii àdduna yëpp ñu ngi koy nawlu ñu koy nawloo bu baax a baax rawatina taalibe bàyyi ne si biir réew mi ak ci biti réew loolu buñ sa egsee ngeen jàkkaarloog jëmm ju seetlu ji defe naa da ngeen ko xam bu baax a baax kon bisimilah ñu ànd ak yéen su suñu yóbbalu Mawlud incha allah. mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi ni leen koy waxee waxtu wu ne seen mbégte mooy suñu kóolute di am mbégte bu baax a baax si ànd bi ngeen ànd ak programme Kossy TV yu lu Mawlud yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi si internet bi dañuy seetaan gis nañ mbégte gi nga am gis ngeen contentement bi ñu am ba tax tey ngeen óolu Kossy TV si Mawlud bu nekk rek waxtu wu ne ngeen am lu bees lu ñu leen andil ñu leen kenn si ñi nga xamante ne borom yi xam-xam lañ waaye ñu andil leen kenn si ñi nga xamante ne nii ay professeur lañ ay jàngalekat lañ ay université lañ ñoo xamante ne nii ay téere téere téere jamono yi ñu toll nii ñu ngi koy bind àdduna bi di si jàng di ci góor góorgóorlu tey jëmm ju baax ju sell ji njàkkaarloo tey moo ñu ko wax kii nag moom dafa bokk si produit wu Imam Assane Cissé yal na yàlla yokk si barkeem euh, Oustaz Baye ñu ngi lay ziare di la nuyu si Kossy TV yóbbalu Mawlud bi téléspectateurs yi waxtu wi ñu toll nii yàkkamti la lool ban kàddu rek moom nga am nga présenté wu. macha allah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin sayidi wa sayidi almursalin mawlana arrasulu sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi atayibin atahirin wa radiya allahu an saaxibi alqatmi walkatmi abil abbas mawlana sayidi ahmad attijani wa an waarisihi wa saaxibi faydatihi مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس القائل فمن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما نيجي ندوكل الخليفة خادم الأمة شيخ محمد الماحي شيخ إبراهيم نياس waaye ñu ngi ziare di ndokkeel al imaam imaamul xadra Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Seyd Ali Cissé noonu la ñuy ziare di ndokkeel wakiilu daad Muhiddin Cheikh Mouhamadou Lamine ni nga xam ne mooy borom gàmmu gi. Euh, di ndokkeel it euh, naatiq rasmi porte parole Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass. di ndokkeel mbooleem xalifa généraux yi ci senegal ak mbooleem aïma yi mbooleem jullit ñi ci gàmmu gu tedd gi. ñu ngi fii ci Medina Baye di dëkk boo xam ne dëkk cosaan la. Euh, di dëkk boo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim mi ngi ko dippee Madinatu Rasul sallallahu alayhi ngir cofeel gi nga xam ne am na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba nga xam ne eh, léppam rek dafa bëgg mu niru yonent bi sallallahu alayhi wa eh, gàmmu nag ci Medina bàyyi dafa nekk loo xam ne eh, lu cosaanu la lu international la ndax bu gàmmu jotee boo fi ñëwee da fi gis mboolem nationalité yi ñëw ngir taataan ci li nga xam ne moo di xam-xam ngir taataan ci li nga xam ne moo di leer. gàmmu ñu ngi ko njëkk a def ci Medina bàyyi ci 1931 ndax euh, Baye mi ngi fi sanci ci le 3 avril 1931 waaye euh, ñëwutoon pour toog dafa ñëw rek sanci dellu Kossy ba le 24 le 24 décembre 1931 ci la njëkk a ñëw nag pour toog pour dëkk si kon euh, gàmmu Medina Baye ñi ngi ko njëkk a def ci 1932 1932 ci la njëkk gàmmu fii ci Medina Baye euh, bàyyi gàmmu na fi ñeent fukki yoon ak ñeent gannaaw gi Alhaji Abdoulaye Niass euh, gàmmu fi moom it ay yoon euh, gannaaw Alhaji Abdoulaye Niass ki ci topp di Cheikh Mouhamadul Hadi Cheikh Ibrahim Niass moom gàmmu na ci jamono Alhaji Abdoulaye Niass benn yoon. ci 1999 98 nag Cheikh Mouhamed Nazir Ibrahim ñas moo ko gàmmu 99 Serigne Adi Niass moo ko gàmmu moom Serigne Adi Niass gàmmu na 99 ba 2004 2005 nag la baabal mi jël gàmmu gi ba jamono yi ñuy wax a génn ci diggante bi kenn rek moo fi mas a gàmmu mooy Cheikh Mouhamadul Makki Ibrahim Niass ci 2018 ndax jamono boobu baabal mi dafa nekkoon Paris. gàmmu 2018 Cheikh Mouhamadul Makki Ibrahima Niass moo ko gàmmu kon ñooñu rek ñoo fi mas a gàmmu di Cheikh ibrahim Niass fii ci Medina Baye Alhaji Abdoulaye Niass Cheikh Mouhamadul Nazir ibrahim Niass Cheikh Mouhamadul Hadi Ibrahima Niass Cheikh Baba Lamine Mouhamadul Makki Ibrahima Niass kon ci xalifa yi Baba euh, Cheikh Alhaji Abdoulaye Niass rek moo fi mas a gàmmu ci xalifa yi ba jamono yi ñuy wax a yéen euh, gàmmu nag dafa nekk loo xam ne lu bàyyi fonkoon la ndax Euh, comme ni mu ko waxee qalbi dawaaman bil madinati yarqubu chahr alxabibi is araahu yaqrubu suma xool daaiman mi ngi ci madina di fuglu li nga xam ne moo di wéeri gàmmu waxtu woo xamee ne jege si na moo tax bu weeri gàmmu jotaan lépp lu mu daan def rek daf koy ful daf koy gën a yokk dafay gën a yokk tabeem mbaa xam daf koy gën a yokk joxe tabe ci wàll xam-xam lépp daf koy gën a yokk ndax mën nañoo wax ne bàyyi mboolem événement yi mas naa jot fekkut ko Medina muy korite muy tabaski muy ziyaara ba mi nga xam ne sax taalibe ñoo koy defal yëpp mas naa jot fekk mu tukki ba mu des gàmmu gàmmu mooy loo xam ne lu mu ko fekk muy def def koy bàyyi ñëw defee defee ko madina ak taalibe yi loolu nag ngir fonk gum fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne nee na fa law sawaruni fi lxaqiqati lam yaraw siwa shaxsin mahbubin bihi natamattaw bu ñu ma fàtte woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ñuy gis kon kooku dafa euh, sopp yonent bi sallallahu alayhi di ko roy ci li nga xam ne moo di sunna di ko roy ci lépp ba ni mu ko waxee ida saara xayru nnaasi surtout waraahu wa in xalla yowman falmasiru baidun moo tax gàmm bu jotee dangay ngay gis muy euh, ñaax taalibe ñoom ñëpp ñu ñëw di gàmmu si fii ci Medina Baye ngir rek euh, bëgg boo xam ne bëgg na ko yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy continuer ba léegi bu gàmmu jotee nga gis euh, firi alquran mi cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass xaala xaddasana cheikh euh, imam cheikh Tidiane Aliou Cissé ak yeneen duruus yi nga xam ne ñu ngi koy def fii loolu yëpp rek ngir dundal weer wi ngir màggal weer wi ngir dundal weer wi ci xam ndax ku nekk xam ne Medina Baye Medina euh, leer la Medina xam la. kon nag euh, bu gàmmu jotee loolu yëpp dafay gën yokk ngir fonk ngoo xam ne Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass fonk na ko gàmmu moom Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass nga xam ne ku nekk xam na euh, liggéey yi nga xam ne liggéey na ko ci àddina bi te lépp loo xam ne rek réussir na ko ci àddina bi euh, amul fenn fooy dem lu may danga fa gis ay taalibeem ci réewi àddina bi ñun ay doxkat lañu woon fu nekk dugg nañ fa te fépp fu ñu dugg rek da nga fa da nga fa gis jeexiti Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj te loolu yëpp daf ko delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na lépp lu mu am rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko may lépp lu mu am min ko am ci cofeel ak mbëggeel goo xam ne bëgg na ko yonent bi sallallahu alayhi wa kon loolu ci la yar ay njabootam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa roy ko jaar ci li nga xam ne moo di ay tànkam jëfee li nga xam ne mooy ay njàngatam ci loolu la roy ay njabootam ci la roy ñi nga xam ne ñoo di ay taalibeem alhamdulilahi rabbil alamin ba nga xam ne boo ma dina doo gis dara changé wu lépp loo xam ne rek euh, gis nañ ñu ngi ko daan def ci jamono Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yar na fi ay euh, ñoo xam ne ñu ngi continuer li nga xam ne moo di mission boobu euh, di dundal li nga xam ne moo di weer wi lu ko dalee ci bu weer wi feeñee di def mawlit ba bay gàmm gi ji jotee noonu mooy li nga xam ne mooy aada fii ci Medina Baye kon ñu ngi sant yàlla ci li nga xam ne moo di may gi ñu yàlla may Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass mu nekk koo xam ne dëgg-dëgg sëriñ la boo xam ne waxtu nekk rek lii itteem mooy ommat taalibe bi du mu xam boromam tabaraka wa taala lépp loo xam ne rek mi ngi koy def mi ngi koy def ngir cofeel goo xam ne am na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fala anaalu raxatan lil qalbi wa fi lbasitati yuaasi rabbi nee na du ma am noflaay mukk ci sama xol fekk ci kaw suuf nit ci di mooy yàlla amul noflaay ci xolam moo tax mu daan tukki di dem fu nekk علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمدن بل هل جبالا أروم رد الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا جيل الجديد boobu nag ñoo gàddu fi nekk ni ñu toll flambeau bi di liggéey ngir mottali li nga xam ne moo di mission yi Mawlana Cheikhul Islam Al Hadj Ibrahima Niass yàlla nañu ko yàlla fayal wasalaamualeykum wa rahmatullah waaw ñu ngi nuyu diaspora bi yëpp waaw ñu ngi nuyu diaspora bi yëpp di leen euh, wax ne gàmmu dina Baye ñu ni euh, képp koo xam ne rek euh, man ngaa ñëw fa lilahi alhamdu ku ñëwut tamit ñi fi nekk wuutu nañ la di rafetlu taxawaayu Kossy TV dalee ko ci suñu yaay yànneen ne ba ci personnel bi nga xam ne ñoo koy jàppale dëgg-dëgg seen liggéey rafet na ndax euh, lii dafa nekkoon mëbëti Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahima Niass am média boo xam ne moo koy gunge ci li nga xam ne moo di mission am ndax ci 1961 liir naa journal al axbar buy génn ci Égypte bàyyi di ñaan Jamal Abdou Nasser ne ko damaa bëgg nga may ma ma tabax journal boo xam ne day bind ci français di bind ci arabe di bind ci anglais ngir xamoon na njëriñ li nga xam ne moo di communication xamoon na li nga xam ne moo di njëriñu média euh, kon nag bu demee àddina di dem. bañ gis ko si TV gis yeneen média yoo xam ne ñu ngi fi di gunge xadara bi ci li nga xam ne moo di mission boobu dañ ciy sant yàlla di leen ñaanal yàlla yàlla dëgëral leen yàlla euh, indi ay yeneen i Kossy TV ba nga xam ne euh, fépp foo xam ne ak fayda bi àgg na fa yàlla na fa Kossy TV àgg di mottali li nga xam ne moo di mission bi di mottali li nga xam ne moo di liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Oustaz ñu ngi lay béggee bu baax si kàddu yu am solo yi ku ko dégg xam ni xam-xam moo wàcceti defe naa mbokki internet yi kontaan ngeen bu baax a baax si jëmm ju sell ji ngeen jàkkaarloot moo tax ma bëgg su fekki ak si ngeen ne kontaan ngeen rek bësal leen ma kër yi ak partager bi ak commentaire bi ma xam kii mooy ki nga xamante ne nii waxtu wu nekk rek yi téem mooy xidma Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass Oustaz Baye Thiam Zeyna ñu ngi koy ñaanal yàlla fan bu gudd ba ànd ak wér di bindikat nag incha allah rabbi xam naa danañ joxe numéro téléphone bi si suuf incha allah suñu baar écran ngeen man di jokkoo ak moom lenn si téere yi waaye lenn si yi nga xamante ne tey si Mawlana Cheikh Ibrahim la yéen gëstukat yi ngeen man see jàkkaarloo ak moom ngeen man see jokkoo ak moom ngeen man see tamit eh, jokkandikoo ak moom ngeen mën a xam eh, seen sëriñ tey lim indi lim bind lim def lim wax si bépp fànn nag waaye xam naa su ngeen koy laaj tamit boole leen si maam Baye ak média loolu moom bind na si bind bu yaatu boo xamante ni incha allahu rabbi su ngeen si jokkoo ak moom rek da ngeen ci am dara kon oustaz euh, ñu ngi kontaan bu baax di bég si yéen mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi yóbbalu Mawlud lii la woon ñu ànd kooku suñu sëriñ suñu papa suñu xarit suñu lépp nekk koo xamante ne ku xam na communication la ndaxte tey imaam Assane Cissé euh, rajo bi mu taxawal tey fii ci Medina Baye muy euh, Alfayda FM 90 point un nekk na kii nga xamante ne moo fa njëkk yëkkati kàddu bokk na ci taxawaay bu sell bu ko imaam jëloon teg ko teg ko si loxoom kon dëgg-dëgg tey buñ ko indiwaatee fii mu andi tey yóbbalu gàmmu dañ koy sant di ko gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu des leen di ànd ak programme Kossy TV incha allah. alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi feetu bi Kossy TV feetu bi. ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu ma dina bàyyi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 leen ci 78 481 11 52 wala 76 626 48 48 TSA Tidiane soo kaay defar sa gàll. cosaanu feetu bi Kossy TV. كليني يا سلمى سلميني لمالكي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 44 45 bu dee code bi 41 35 45 web 77 507 04 45 Corporation be together and work together. mbokk yi commission culturelle bu COMAF yore lépp li wàllu xam-xam ñoo te di leen yéegal te di leen ni woo ci benn ci conférence yi nga xam ne moom la ñuy amal ci jamonoy gàmm gi bii nag ñi tuddee ko kilifa gu mag di tiitaru xadara bi yëpp di as sayda yànnee na caam ci taalibeem loolu tax xalifa bi joxe ndigal te jamonoy Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ba léegi ci ndigalu xalifatu saahibil faydati Tidiane ya Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma imaam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Alim Cissé imaam ratib bu Medina jiite commission culturelle bu COMAF ñoo am mbégte di leen yëgal te di leen woo ci conférence bi nga xam ne dañ koy amal at bu jot jagleel ko al muqaddamul baraka ak sayda yaane na caam ñu jàpp ko alxames juróom benn fan ci weeru octobre 2022 maanaam buñ na gannaaw suba la gàmm gi bu juróomi waxtu jotee maanaam ginnaaw tàkkusaan ci résidence Abdoulaye Bayero kër gan ci Medina Baye thème bañ fay waxtaane nag am na solo lool ka koy waxtaane tim di borom xam-xam doy na ci rek ñu ne moom moo jiite jàngam arab ci région bu Kaolack nekk ci IA Touba dëkk bi nga xam ne mooy man baol fayda kenn ci kàngamu Mawlana Cheikh al Islam itam dëkk fa mu di a Cheikh Maam Ibra Fall radiyallahu anhu kooku mooy inspecteur Moas Ahmed Bitey thème ba mu fas yéene waxtaanee moo di jeexitalu njàngaleem diine lislaam ci doomu aadama bi ak ci xeet wi maanaam société bi mooy thème bi nga xam ne moom la commission culturelle bu gàmmu Medina Baye tànnal a Seyda Yane na Thiam ak daayiraam inspecteur Moas Ahmed Bitey war ko waxtaanee mbokk yi conférence bi ëpp naa wuute ne bépp doomu aadama soxla na ko ka koy waxtaane tim borom xam-xam la jeudi la 6 octobre 2022 ci résidence Ablaye Baye Këru Gan ci Medina Baye ñu ngi ci woo ñëpp ànd seeg ak Seyda Yane na Thiam ak Dayram bu ko kentaan Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi ci di barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay faydu baay bi